wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man kulli man talaa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki yi ma fekk yëpp di leen ziyaare bu baax di leen ndokkeel ci bis bi bu baax a baax a baax ziyaar bi ak ndokkeel gi it maa ngi koy dénk Serigne Bassirou mi mu jàllale ko ci mboolem ganam ñi mu fi am tey ci njabootu Cheikhul Khadim ak i seexam ak i taalibeem ak i bokk yi lislaam yi nga xam ne ñoom itam ñu ngi fi toog ak bokki yi nga xam ne yëpp moo xam e-, autorité étatique la wala dara ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax leen ziar daanaka man damaa wax ne sëñ Moustapha dafa fonk rek sëñ taxa waaye kàddu gi tey moo ko moomoon te fi wax doy na sëkk yaatu na te mënuma wax lu génn li mu wax ndax wax ji mënta génn diggante sëriñ Muntaxa ak sëriñ Basiru mi wax ji mënta génn bis bi nga xam ne dañ koo jagleel Cheikh Mouhamadul Amin wax ji mënta génn diggante bi nga xam ne sëriñ Bas am na ko ak mboole mbooloo mi fi toog kon loolu bu ko waxee mën na ne wax na lépp waxuma la moom waaye sëriñ Sidi Ahmed di sunu kilifa moom sunu maam alaaji Abdou Aziz Dabba li mu fi wax defe naa moom itam doy na sëkk ni ko sëñ Moustapha waxee kon sëriñ bi damay feddale rek kàddu yi nga xam si Moustapha wax na ko ci sa diggante sëriñ bi waxaat na ma ko biig rek bi may ñëw ne ma nuyul ma ko ne moom jàmbaari sëriñ Tuubaa la nuyul ma ko bu baax da siyaaral ma ko te ne ko maa ngi koy ñaanal lépp loo xam ne jublu na ko yàlla na ko yàlla mottali sa bis bi itam ñoo ngi ñaan waaw ñaan dafa mën da ñàkk lu baax dafa mën a ñàkk. Hmm. mooy nga am ci ndam. waaye bis bi am ci ndam yomb na ndax ki nga ko wooteel moo tax muy Cheikh Mahamadul Amin. Hmm. Cheikh Mahamadul Amin bi nga xam ne bi mu ñëwee ci jamono indaale na fi loo xam ne duutu jeex mukk ndax sëriñ ca la indaaleel mbooloom sëñ Tuubaa ginnaaw bi mu ñëwee moom la sëñ Tuubaa wax ne kii kat li ngeen fi doon wut indaale na ko biig tala moo di ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla du jeex. te boobaak léegi ñoom jëriñoo nañu ko seeni doom jëriñoo nañu ko seeni set jëriñoo nañu ko te ba àdduna yi tukki seeni set di ko jëriñoo kooku moo fi indi sëriñ ci bu dutu jeex mu ko ci àdduna kon Cheikh Mouhamadou Lamine ku ne am na ci wàll ku ne nga ci sa sa sa gis nga ci sa bopp ku ne am nga ci sa wàllu bopp kon bis boo koy defal bis boobu ndam rek la mën a am noo ngi la ciy nuyu bu baax di la ci gërëm di la ci fàttali bu baax a baax di nuyu mboolem bokk taalibe yi fi teew sa xarit bopp yi ni ko sëñ faa waxee léegi ñu feddali ko rek muy sëñ Abdoulaye Dia sëñ Moustapha Ndiaye ak mboolem mbokk yi fi teew jabootu sëñ Tuubaa gi yëpp fàttewuñu kenn ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax leen xamal ne am nañ leen te ngeen ku ko mat ku ko jar kon nag bu soobee yàlla itam la ngeen ci war a góobe lépp ci ay njariñ ak xéewal da ngeen ko ci xeewal li ngi ñaan yàlla yàlla na nangu lépp bu kon nangoo ba noppi itam mu may nunu fekkee ko ay déwén yu bare bare bari nga di ko def te ndam yi gën a bari di le rek nuyoo Cheikh Mouhamadou Mountakha ak i ñaanam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf mu mel ni waa kër El Hadj saadi Sadi gépp ñu ndaak Marème Sadi mu ak Bousso Ablaye ñoom ñëpp Marème Sadi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant te di leen gërëm El Hadj Serigne Bamba Sadi Kébémer ñoom ñëpp ñëw nañ sëñ Bas ajaratu ngoy Fall ngeen bokk lu bari mu ànd borom këram bii. ngeen bokk ma séri sa jéey bokk lu bare bare bare bari moo la jox enveloppe bii mu jaar ci Adja Kine Thioune boole ko xeeb ko lool. léegi seex sëñ bi waa sëñ bi sëñ bi sëñ bi dafa am lu ma lu ma ñaan ndax bis bi man lu fi waay def man la ko defal bis bi ku ci joteel maa la tooñ sécurité bi nga xam ne boobu ba tey ñu ngi fi sonn ci yow lool am naa ñoom ak réeroo sànq bu dee ñooma ñooma tooñ nañ ma baal. bu dee maa leen tooñ na na nañ ma baal man ab murit la tey dóoma amug rëy bisu ba bisu ba baara du ma nangu kenn di ma ci yóbbul mer maa ngi leen di tuubal maa ngi leen di jéggulu ngir jëmmi borom bis bi ne presse bi sëriñ baa ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm ni communicateurs yi ni jànkatu xasida yi ni sénateurs Serigne Ba sant na la gërëm na la yaa mbooloo mi yëpp. ñi nga xam ni mooy sëñ Jili Abdou Aziz mi jiite woon comité bi ñu ngi koy sant ah, Mouhaydine Serigne euh, Serigne Seydou Habidine di caatu alaaji maam bu Mamadou Kunta mooy joxe teraangaam noonu jëmee ko Serigne Bassirou ci ndigalu soxna Assu Kunta ak Serigne Mouhamed Kunta ak njabootu alaaji maam bu Mamadou Kunta ànd ak Serigne Moustapha Ndiaye Al Karim jërëjëf Kunta Sidi Serigne Moustapha Al Karim Ndiaye waaw moom la yónni waaw. ñun ñoo bokku lép ah Serigne Moustapha waaw. nee na ñoo bokk lépp. Ah. Kunta ak waa kër Serigne Touba benn lañu. bis bii seen bisa yéen yéen a war a dalal gan yéen leen war a teeru. sama xol sedd na kontaan na bu kóllëre gi danañ ko dox danañ ko jàpp. kon ñu jox Sidi Ahmed mu ñaan ñu yewee waaw waa sëñ bi waa jërëjëf waa kaay waa waa sëñ Sidi nañ wàcc ne na ñëw mu ñu yeweeku sëriñ Abdul Malik ñëwal nii yow ak sëñ Sidi Ahmed ak sëñ Moussa Lakram ngeen ñaan ñu yeweeku presse bi sant leen bu baax sécurité bi gendarmerie gen Basir may ma ba ma pare. ba ma pare. yaay ñaan ñaan leen. bisimilah ñaan leen. Serigne Sidi Ahmed ñaan leen yow sëñ Moussa Lakram ak sëñ Abdoul Malik ak Serigne Koso ñaan leen yàlla def fi jàmm. Euh, ma continué Serigne bu ma waaw na nangu leen ñaan. ñaan gi nag mooy dalee Tiwaawan ba Njaasaan jàpp jàpp ca na bàkki laayeen nim sàtt ba Kawlax ña seen lii mooy euh, ñaan gi. ah waaw alaaji Madoun Fall sëriñ bi sant nala gërëm na la yàlla na yàlla yàggal saxawaay amin amin si Malick amin si amin si alaaji Seydou si sëriñ baa ngi lay sant di la gërëm sëriñ Cheikh Anta Samb sëñ bi nee na jërëjëf amiin si Malick. santal Abdou Aziz Samb. nee na Abdou Samb ñu ngi koy sant. nee taalibe sëriñ Sidi Ahmed si mii. ba noppi di doomam. di sama rakk di sama nee na di sama rakk sama xarit te jërëjëf. amiin. Sëñ Abdou Malick nee na na tëj ñaan gi. maam Alpha. nee na Sëñ Abdou Malick. maam Alpha Serigne Abdou Malick Niass mooy tëj ñaan gi. maam Abdou maam Alpha si. nee na maam maam maam Alpha si da baax. di rakk sëñ Sidi Ahmed. nee na di rakk sëñ Sidi joxaat na ko Serigne Sala Karam. ndabal teranga dañu koy buuxante ba mu xar. muy Tawfekh